problème bi informé naar yi li waa ji doon bañ non li waa ji doon bañ ana ana kii ana ana dafa jël dafa jël dafa jël eh dafa jël eh wal ma dafa jël te lii la lii lay kii lii lañ doon assuré pour li gisul eh eh dem ba waxal li nga doon def li nga doon def yow sax suñu da nga naan journaliste yi mu ngi nii moom ñu ne man affaire bi kay dama ko négocier Sai. Sai. Hey, hey, hey, what's up, dude? Ebae. Ebae. Sonunda bugün yaptınız ya. Eski yansınız.